rakan bu ci nekk mu jàng fatiha benn yoon jàng xul wallaahu fukki yoon ak ñaar xaraf bu ci nekk des na ko ca bindal tuyaabay jaamu yàlla ak junni at dana mel ni it ku leyal xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa bi yépp juróom-ñaar fukki at yu matt boole ca màndal leen wodd leen mel na ni it ku gëreel junni jaam te bu ñaanee xaajoom borom bi subhaanahu wa dina ko ko defal te buy jéggi siraat day mel ni ak melax mbokk yi ku ci bëgg yeneen leeral dangay dellu ci Xurratu Ayni bu Sëriñ Suhaybu Mbàkke page 143 yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal